rafet na jekk na. neex na la wala neexu la. da ngaa rafet na damay daje ñu koy sol ma dafa rafet. am na ñu jàpp lool. Ah. mais mais yàlla euh, xam nga lan hmm? la. Pape bu ñu sonal waaye. bàyyi ñu jeudi bàyyi ba jeudi. ñëw. waxuma li yàlla waxuma lu araam waxuma lu dagan mais rafet gi daal moo xam ne mën naa ko seede. Hmm. jërëjëf ñu ñëw ci secret yi gis nga yow des bu ñu def astuce foo ngay wàcc plateau bi parce que yow da nga out. tey secret yi lan la. ah en ah, direct. secret yi waa ah, tey tey lan nga ñuy proposé. ñoo ngi siyaarewaat bu baax a baax ci Kayna. Mm. lu am solo lii mu indi ndax am na ñoo xamante ne ñu ngi koy jànkonteel mm. am na ñu ma ci xam ñoo xamante ne seen bopp yi noonu la mel. man naa bu ñu seetaanee lii sax man cee mën a amaale. Mm-hmm. xalaat bu ko defee tey soxna. Aïcha ñu indi secret bu am am solo. Mm-hmm. nga xam ne gars yàgg nañ ko laaj ñuy kaaraange ci wàllu noonu. ça mm. waaw doomu aadama yi léeg-léeg dañuy dañ am na ñoo xam du ñu yéenante daal ndax yàllaa leen bind te moo leen gën a xam te dafa wax ne yonent bi wallaahu yaxsimuka mina naas dinaa la musal ci pexe doomu aadama yi loolu question la maanaam nit ñi bu ñu doon pexe. suñu borom du wax yonent bi dinaa la musal ci pexey nit ñi waaw comme yonent bi la ko wax nag wax ak wax keneen kenn ku ci nekk war ngaa wutu yow lu la ci musal euh, bu ko defee surtout xorey si fi xorey si lii bu sayfi falya'budu rabba haazal bayti allazi at'amahum min juu'in wa soo ko bindee ñetti yoon waaye saad gi nga xam ni moo nekk ci wasay fi nga tijj ko yaatal ko bu fekkee ràññee nga ñoo xamante ne ñoom xam nga ni jubluwoo leen dañ lay xeex nga am ci përëf mën ngaa dugal seen tur ci saad gi nga xam ni moom nga tijj te mu nekk ci wasay fi waaw gi nga xam ni ci la saar yu jeexe muy wa amunu xaw xawfin waa wa amanu min xawfin waaw googu nga tijji ko nga def ci sa tur yow léegi saat gi ci ngay def sa turu noonu waaw gi nga def ci sa tur ñooñu bu fekkee dangaa ñaaw njort ci ñoom ñoom dañ lay fexeel insha allahu rabbi lu nu def ci yow ngir dem ci beneen bërëb ngir jëm laa yàqal wala dara bis bu na ci gàcce la ñuy dëkk te taraanga ji woon ci ñoom sax sunu borom dina ko nangul jox la ko mooy ñooñu nga xam ne bis bu nekk dañuy yërëm seeni noonu parce que ñoom dañuy gën a avancé euh, ñi leen di soxore di gën a arrière mm-hmm. secret euh, li laa bii nag képp ku ko def moom bu la neexee mën ngaa bañ a tiitati parce que lu jugu lu jugewul ci yàlla du mën ci yow dara loolu benn la mm-hmm. beneen ci topp muy sóortu bàqara mm-hmm. bu fekkee takk bi dalay sonal sóortu bàqara muy alif laam miim saalikal kitaab soo wutee ndox ndoxu samsam nga tiim ko nga jàng ko njàng mu sell li nga jàng nga tifli ko ci ndox mi te diggante bi nga koy jàng doo wax ak kenn nga jël juróom-ñaari doomi guro yu weex ak juróom-ñaari doomi guro yu xonq nga def ko ci saafara si nga xëy sangoo nga fanaanal ko xëy sangoo ndox ma saraxe guro ya di mucc ci leru doomu aadama ak seeni pexe loolu ñaar ki nga xam moom mënut a sangu. Mm-hmm. bu fekkee euh, sëñ bi doon laaj naan day tukki te wóoluwul soxnaam ndax tukkeem bi day yàgg mag ñi daan nañ def naan bu ñuy tukki bañ seen soxna bañ seen soxna njaaloo képp ku bañ sa soxna di njaaloo ak keneen. xunóot da nga koy bind ba mu jeex nga takkal ko ko téere ndigg jigéen jigéen joo ko takkal du mën a laaj du mën a jaaloo xunóot waaw ñaan la goo xam ne boo ko bindee ba mu jeex benn yoon nga jox ko soxna jigéen mu takk ko téere ndigg pour sa soxna sax doon sa doom joo xam ni bëgg nga yàlla sàmm ko mm-hmm. bu ko takkee du mën a njaaloo ndox képp koo xamante ne da koo tiim ku boroom këram du man ci moom dara mm. xunóot borom xam-xam yi mën nañ maa seede xam nañ ci lu bari. Mm-hmm. waaw bu fekkee tamit dangay ngay ngoro xaalis bi nga xam ne danga koy may kii bañ mu wor la pour bu ko takkee gën laa bëgg soo ci jàngee xunóot jox ko bu ko lekkee ngoro ga du tas. Mm-hmm. waaw xunóot boo ko jàngee nga nga yor nga yëgati xaalis boo xamante ne euh, soxna si mu ngi la koy ñaar nga jàng ci xunóot tifli ko wala ñu jàngal la ci xunóot tifli ko ci koo ko jox ngoro ga du tas bu ko lekkee. Euh, bi ci topp muy wàllu kaaraange euh, képp ku def lii nag moom ay ngëneelam nag mënee su ko lim yàlla rek ko xam ndax di nga mucc ci ay mbindeef yëpp waaye dangay mucc sax ci mbëggalum bàmmeel kulli soo in daara yi la kaaraange àdduna ak alaaxira muy sortu mulku tabaaraka lazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in xadir képp ko saxal di ko jàng suba ngoon di mucc ci pexey mbindeef yëpp ak ay mbindeef yëpp bërëb boo toog bu fa musiba naroon a am sax di nga ñëw ba dem musiba doog faa am di mucc ci cat mucc ci làmmiñ mucc ci bët bu ay mucc ci njëgteef mucc ci rab mucc ci seytaane yàlla ci boppam wax na ni óor boo ko jàngee mooy yebal ay malaayka yu lay aar surtout mul ko te boo duggee ci biir bàmmeel sax malaayka yi duñ la laaj duñ la bu fekkee tamit danga nga koo bind mënoo koo jàng nga tàkk ko day mel ni comme ki ko jàng comme ki nga xam ne da koo da jàng suba ngoon mm. kon foofu la euh, secret yam soxna Aïcha jërëjëf euh, ñi nga xam ni dañ doon wax ni seen doom dafa réer mm. dima ko laaj lu tollook juróomi personne ñenn ñi danoo wax ni danoo am mbokk yoo xam ni danoo tukki mais bi demee ci gaal gi ba léegi déggatul leen xamuñu ñu mu ngi dund xamuñu ba xam dunduñu parce que déggatuñ leen daal mënuñoo wax ni dund nañ wala dunduñu hmm. léegi dafa am aaya boo xam ni sunu boroom da ciy wax lu mel noonu ndax wa indahoo mafaatihul xay bi ma nga ca suratul an'am wa indahoo nekk na mafaatihul xay bi caabu caabi xay bi caabu caabi xay bi mu ngi ci sunu boroom caabi xay bi nag mooy li ñëwagul ak li nga xam ak li nga xamul ak li xew suba ak ginnaaw suba ki war a jiitu ak yomal xiyaam la fay xew ak li xew ci biir géej gi ak li xew ci àdduna bi yëpp mm-hmm. ceeb bi xay yooyu nga xam ne kenn xamu ko yàllaa ko xam léeg-léeg nag nit ki di ko jaamu di ko jaamu ba mu xamal la ci asraf mooy li ma xamal yonante bi yonante yeeg nit yàlla yi wala mu xamal la ko ci listixaar wala mu xamal la ko ci gént ci kaw neex gu mu ko neex te tuuti la la ci xamal léegi aaya boobu mu ni laa nekk na ci moom ilaah wa ci yàlla wa yaxlamu dana xam maa fil barri li xew ci àdduna bi yëpp sunu boroom xam na ko wal ak li xew ci géej gi yëpp képp koo xamante ne dañ dañ cee listixaaral dañ cee listixaaral nit fanaanal ko ay bu fekkee kuy dund la danañ ko xam ndax ci tabixaam ci biddiwoom nañ koy xamee bu fekkee ku dundatul la tamit doo ko xam da xam ni faatu na da xam ni faatu doo gis biddiwam. jërëjëf. yaa ngi dégg ki nga xam ni tamit dafa sori ak ki jege ak ki nga xam ne dafa nekkee ci penk bi ak dafa nekkee ci sooy bi wala dafa nekkee gànnaar day listixaar boo xamante ne loo ci listixaar rek maanaam da ngay xam ba xam kooku mu ngi dund wala dund jërëjëf yére ba mu sol sax moo xam dafa ne ci géej gi wala dafa ne dafa nekk ci tefes gi loolu moom mënuñoo wax ci émission ni secret bii ci boppam. moom ngay def dem jëli ko waaye listixaar lag la ñuy mën a def man laa wax moom wan la cee mën a jox ay renseignement yu leer loolu nag képp koo xamante ne soxna Aïssa bëgg na ci am ay leeral da ngay woote ci 78 530 69 81 boo ñu ci woowee ci numéro yooyu incha allah rabbi bu ñu ko xoolee rek ku ci merci ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf ci secret yi nga xamante ni yaa ngi koy partagé ak sunuy téléspectateurs donc mën ngeen demaat ci page Facebook 7TV pour mën a seetaanaat intégralité bi wala ngeen woo ko ci numéro bi Keyna merci beaucoup ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi. merci Aïcha c'est toujours un plaisir xanaa di souhaiter un joyeux anniversaire à ma grande sœur kooku sama doom baay la nee naa la bu sama mag sama yaay nga parce que bi ma nga ma ba am 12 kooku di Adam Diouf. Euh, ndaw bébé bu diis non lii bu na ma lu ne euh, xamal ne je énormément ku ne doom baay neexu rek da amul ay doom baay yu baax yu la bëgg man je vous aime je vous adore happy birthday Adam Diouf ma grande sœur mais aussi di remercier Chupi Beauty euh, moom mi nga xam ne nee naa leen moom mooy jaax tout le temps si samay bopp nee naa leen décembre bi euh, perruque yu ma def xal dafa rafay sama mire yu fin d'année rek toj na donc mun ngeen ko contacter sur le 77 687 51 64 moo ngi nekk fële ca unité poste centre unité 26 bi di leen jox dig daje incha allah ba suba incha allah. ba suba incha allah Kina merci beaucoup ta perruque magnifique. Euh, ah, voilà tey moom elle est classe macha allah. merci euh, beaucoup hmm? ah, merci à demain bon ñu remercier téléspectateurs yi. futur mari de ah, bon. <laughs> mari boo xam loolu dina bizarre. doo couple bu garaaw. balaa ñuy takk lay tas. vraiment bu doy lay war a doon Pape merci. merci beaucoup à demain. ok inchallah. Kajo. bonne journée à tout le monde. tu es bien sapé aujourd'hui. ah merci ah, cravate <laughs> chemise teg sa veste. man daal journaliste su set yi xoolal ma jëla ma ci el bi. Hmm? man may seen ginnaaw. merci beaucoup à toute l'équipe de la matinale merci beaucoup Babacar Allo Paris il est joignable au 546 15 46 merci beaucoup à Charmel pour la perruque euh, 78 266 27 80 merci à vous à demain incha allah Maria mu ngi ñëw ci kanam daal di leen di gunge li nga xamante ni moo di la mi journée waaye à 10 heures di ngeen am seen flash